yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification. wuy ma euh, lu mus a am Sénégal ci wàllu histoire. Mhm. ak etu politique etu politique yi mus jaar Sénégal yëpp ak nit ñi amee xam-xam xalifa lu <laughs> Abdou Mbow moo fi moo ko fi amal. Mhm. <laughs> non dama leen di rek am na yoo xam ne xoolal intellectuellement parlant. li jaar Sénégal ci ay tête ci ñu xam politique mosuñu def motion de censure mu jàll Sénégal non du Abdou Mbow moo koy exécuté. Mm-hmm. <laughs> non non non mooy am doole <laughs> dañuy cinéma mm-hmm. li dëgg tey dëgg mooy li dëgg tey dëgg mooy euh, ndeysaan ndeysaan gis nga xaj boo ko yooyu buum di ko pendre. Mm-hmm. ba keroog muy dem ba commencé yuut baat bi dootul wax mooy tax ma noppi mais day yuuxu rek day ba ba muy dee xalifa day yuuxu ba muy dee yàlla xam na ko ñoom nag xoolal fi mu nekk nii coow bi yëpp mooy dee nañ mais dañuy yuuxu ba keroog ñu leen di suul <laughs> di yuuxu ba keroog ñu leen di suul. <laughs> di ñu bàyyi benn yoon. xam nga Abdou Mbow moo la gën a xam ne bu ne moom mën naa def motion de censure bu daaneel gouvernement Ousmane Sonko day gént rek. wallahi day gént parce que dañu nekkul sax ci. modèle yooyu tey. c'est-à-dire que ñun li ñuy daw da leen a ñoom ñoom ba léegi mënaguñu xam ni changement au système am na fi changement au système dafay changé waale doxalin bi dafay changé waale daf ñuy obligé même ñu changé waale as lëf ci suñu constitution. Mhm. loolu force la li ñu xamul ci gouvernance moom lañu ñu leen di imposer tey muy numéro deux bu baax président de la république. war euh, a un parti nekk premier ministre ñuy fal ay nit di leen surveiller di leen bàyyi xel di leen jubbanti ci doxalin ku dëngal ñu dàq la mhm. ku gestion bu leer nañ ñun fas yéene nangu xaalis bi ñu sàccoon fas yéene taxaw baykat yi xalaat ci indi ay unité de production nit ñi di développer c'est-à-dire que Sénégal alir bu ñu jël ñoom ñi nekkoon ci ñu jëkk ba léegi dañoo xamul Sénégal ngi daw ci waneen yoon